luppe waa gi dafa amul jongoma bu mel ni yow man nag xam naa ni maag moom waxtaan ñàkk waxtaan la rek ñàkk waxtaan la rek maag moom ñàkk waxtaan la rek parce que neex naqariwu maa xool tubaarikàlla <laughs> naa ko tontoo naqariwu maa xool <laughs> jikko ji moo xaw a rëbër rek mais boo taayewee rek mu baax walla yow jigéen laa naqariwu maa xool mais manaam damaa sauvage mais incha allah xam naa ne man fu muy mujj jëkkëru oustaz laay am muuru benn yoon libéré sénégalais yi nekk ijab waa ñu ànd màkk sax ñu ànd màkk parce que bëggoon naa dem màkk ren xam naa ba fu may mujj jëkkëru sëriñ laay am na ma sëriñ si takk nag faaf xam nga léegi lan la amaguma borom kër sëriñ bu ma bëgg boo ma takkee wàcceel ma ay kaamil ndax rab gi soxor gi nekk ci man tubaari kàll abal ma rafet naa jongo naa macha allah duma cas social xool leen kër gi fii ngeen di toog mën leen toggal euh, euh, ay ginaar defal leen si ay kii aromas leen ko def manaam maanaam ku man togg yi may xeetu sama xeet togg am fenn nga mën naar laa xoolal chaque jour ma gën la euh, demi mouton defaral la ko brochette di la cuuraay la di la wax lu neex nag mais rab bi il faut nga jat ko sinon rek day yàq kaas yi sama rab bi moo soxol bëggul mariage sama rab bi mariage un an la ma may deux ans mariage ba yàqu xam naa nag am ngeen si solution ndax yàlla may na leen waaw ku ci am solution rek euh, sëriñ si léegi man moom xam naa sëriñ si laay sëy mënuma sëy oustaz Modou Fall parce que moom du tàngal day seddal xool leen si sëriñ si koo leen xam ne daal mën na maa teg bu ñëwee ñaanuma ko dara soxlawu ma dara càng moom comme tas naa juróom yoon sama càng moom seerul xam naa bu tolloo ay cinq 3500 ay mille lay nekk ay maye bu njëkk moom jaru ko vraiment te bii paam dama a sutura jarul xew jarul dara jàkk ja rek ñu takk def farata ngay ñëw di ay si fii toog mooy defaral ay ginaar ñuy waxtaan sama rab nga jat ko problème yi jeex tëj sama gémmiñ gi boo paree tëj sama gémmiñ gi jël sama rab bi simmi ko suul ko gas ko Sénégal yi am jàmm ñëpp am jàmm mais ku ma takk te jatoo sama rab bi tamit sëy bi du yàgg ndax dama am rab sama rab yi moo soxor sama rab yëngal na àdduna j'ai gros problème hémorroïde hémorroïde alors maa ngi gaañu di ah j'ai des problèmes de sama rab moo bëggul góor xam naa rab bi moo bëggul góor rab bi dafa sell mais boo ko jotee def ci ay sarax xam naa ne ku ma bëgg takk daal li ma benn paa waxoon ma benn paa macha allah borom xam-xam bu ma woo bu nekk euh, nu ñu koy waxee mi ngi dëkk ba Kafountine. lii man nag kaay leen wax problème bi xam naa ci ay sëriñ si yu mën ñaan nag fii laa jaan na am ay sëriñ ñu baax ku ma takkate sëy ba du tas moom parce que sëriñ yëpp xam naa leen léegi paa bi mu ngi tudd paa Traoré mi ngi nekk ba Kafountine mais paa bu mën ñaan la xam nga lu ma wax nee na ma yow ku la bëgg a takk il faut mu génne 32 nag yu weex ak 32 nag yu ñuul ak 32 nag yu xàll xam naa ne Matar Sarr mënoo maa takk parce que amoo njëg bi 32 nag yu weex tonton Matar amoo ko 32 nag yu ñuul xaaral 32 nag yu weex 32 nag yu ñuul 32 nag yu xonq ngay génnee sarax pour nga takk ma pour ku ma bëgg a takk daal sëy bi toog noonu ngay def xam naa man jaraluma la 32 nag bu ci nekk jaraluma la sax benn bëy <laughs> wuu jaraluma ko bëy kii jaraluma ko benn bëy sax dafa bëri jaraluma ko pigeon picc sax jaraluma la ko waaye yàlla baax na sëriñ moo bëgg takk daa xam ngeen sarax bi mi ngi noonu 32 nag yu weex 32 nag yu ñuul 32 nag yu xonq xonk tubaarikàlla ngay génne sëy bi daal di toog mu daal di lay topp ni xaj loo wax ma def ko naan la waaw la kay kilifa gi noppi nag suufe waaw loolu la wax xaw ma nag ba xam mën ngeen ko <laughs> toto mataat saa jarul ma la loolu pourtant jongu ma naa nag de damaa bët nag <laughs> dëgg la kay jiw moom benn yoon kii nee na Kunkande Eva eh, Kunkande am na jabar bu rafet macha allah ba mu dugg si Kunkande ma ñemewu ma problème Kunkande fi ne li ma engagé ni rek xaw ma ku ma ko yekk ñemewu ma problème Kunkande Kunkande mi nga xam ne moo fi xar géej gi ah Kunkande bu xaree géej gi dugal ma ca ngeen ñàkk ma bu leen def loolu nañ xool rek. nañ xool rek si ñu ñëwoon parce que ñu ñëwoon ci plainte bi tribunal ñu demoon tribunal ñoom ñëpp jongo macha allah am na paa bi taxawoon côté bi paa bi moom macha allah kilifa la moom kooku moom neex na ma ah tonton Mata Mata Sarr jox ma numéro bi mooy paa bi sol yére xaftaan bu bleu bi def col bu weex bi macha allah paa bi moom macha allah wuu kooku sax du paa sax kooku xale la kooku jantal maara la jantal maara wala sama sëy ak Matar Sarr ngeen gis borom Seneweb ah loolu buzz la waaye ma est que am na xaalis 32 nag yi mu yi mu war a génne sarax dafa bëri 32 nag bu xonk 32 nag bu weex ak 32 nag yu ñuul nag fi 600000 ah man jarul man sama bopp sax jarul ma ko sama bopp <laughs> Oustaz Modou Fall na Oustaz Modou Fall ma mënuñoo def. Oustaz Modou Fall mënuñoo def parce que Ousmane Modou Fall dafa gentleman trop dama bëgg man jëkkër buy dóore laa bëgg. Matar ci nabu ngay dugg mais maa Matar Sarr Matar Sarr jullit la euh, Matar jullit la man jullit laa jigéen laa tey mën na ma denc soxna loolu dara du ci nekk loolu dara newu ci jigéen la góor la jigéen laa xam naa ne soofuma ko mën na ma denc soxna ay jullit lañu di mën na ma jàppale jàngal ma sama diine gën ma xamal kii gën ma xamal sama diine jàngal ma alxuraan ma wàccee kaamin mu am ci ba am ci àdduna am ci àllaaxira loolu geste bu noble la vraiment moo gën ñuy xeex ak xiiroo ngaa sa tribunal ba vraiment bu dee bëgg na ma nañ ko waxtaanee rek mu ma mayee 10 minutes ci temps ñu waxtaanee ko vraiment laay amul benn problème ku baax la de daa juum rek xam naa mais garaawul moi perso si j'avais les moyens de faire toutes ces offrandes je le ferais volontiers Pape si Pape si yow bokkoo ci dañ ne sëriñ si laa wax Pape si doo sëriñ génn sama génn si man waaw jarul nga naan ay su ma amoon dinaa ko def boo ko amoon boo ko defoon si man say mbokk jàpp la 32 nag yu xonq 32 nag yu weex 32 nag yu ñuul ku fi bëgg a génnee ndax si nabu daal say mbokk génnee la si famille bi <laughs> wuy yaay oustaz Modou Fall dafa feros donc kooku borom baax la doom day Pape Cheikh Diallo kooku borom baax la bon mes amours maa ngi dem c'était juste euh, un petit live pour vous dire que ça bien, tout va bien et tout ça. Voilà, Ramna, c'est juste un malentendu, mais bon, j'espère que ça va se régler, Inch'Allah. Voilà, je fais de gros bisous. En attendant, nag ngeen defaloon ma casting ban sëriñ mooy takk na Dash ma question ban sëriñ moo may takk génne sarax yi ma wax 32 nag yu xonk 32 nag yu weex 32 nag yu ñuul teg ci ñu sëy à vie man nag li ma mën mën naa togg mën naa toppatoo ay goro aw ma problème sama rab moo soxor te rab bi maanaam rab bi moo soxor mais yàlla baax na bu ñu génnee sarax bi rek rab bi day dem defee ma mën a nekk une femme soumise muuru loo wax ma ne la waaw saar dëgg la kay wax nga dëgg kay billaay wallaay waaye man loolu mënaguma ko tànk rab baa ngi duma ko mën